milieu gannaaw ba ñu fasalee seeni résultat yu soxal examen certification nationale barab yi nga xamante ni nag dañ fay tàggat ay ndaw ci wàllum wérgu yaram lu nekk ñu koy dégg ñoom nag ñu ci indi tontu. waruñu seetaat système sanitaire bi am au Sénégal ñu yàq ko bërki démb rek xas nañu école yi ni formation bi baaxul tey ñu bëgg a nangu encore école yi di délivrer ñoom ñëpp ay diplôme li ñuy wax di ko teg ci ndodd école de formation yooyu nag mu daal di àgg ci nopp way jur yi ñu bari ci ñoom di xel ñaar ndaxam dinañ yóbbu seeni doom ca yooyu lee lekkoolam am déet état bu Sénégal bi nga xamante ne nag moo gàlloo lépp daal di leen wax ñu daal di ci amal ab suivi maanaam ab topp. ça permet au moins aux écoles topp bi ñuy topp mbir yi day tax ñu gën a xam bu baax li ñuy def digle yi nga xam ni tukkee na ci audit yu ni mel danañ ko jëfee ni mu waree. et, et, de l'avant. li soxal nag wàllum wérgu yaram daanaka dafa sensible waral nag ñuy ñaax njiit yi ba ñu daal di segg seggal. le COSEPS demande aux autorités sanitaires du pays. waa COSEP ñu ngi ñaan euh, ñi nga xamante ne ñoo di autorités sanitaires yi ñu bàyyi xel bu baax a baax si ñi nga xamante ne ñoo di agent de santé yi ñu recruter ndax ñii rek am diplôme d'état ñoom daal lañu la waa ministère de la santé di évaluer. ont été bien évalués par le ministère de la santé. balaa nag boobu lay segg ak boobu saytu ñu koy amal ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo di collectif bu ëmb chef d' établissement privé yu formation di ñaax rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo di njiit yi ba ñu daal di def seen kéemtalaay kàttan ba dal daal di dellu ci waat ci bile milieu.